asalaamaaleykum mbokk yi seetaan comme ni ko sëriñ Serigne Abdoulaye Faye waxee ah, ñu ngi fii nii Daaru Xuddoos si set setal pour préparation màggal Daaru Xuddoos bi daayira yi ci Touba yëpp ñëw nañ rawatina njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall xam naa damay daal di ànd ak sama caméraman jël sama mikro ñu xool taalibe Serigne Bamba yi nan lañ dundee bale bi tëddal nag nelaw yaa Moustapha ñëpp mokk nañ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 andi ko fii ci dëkk bu sell bi Touba nga xam ne mooy li mu taamu woon jëm boppam ñuy wàccaay ñu ne ci wàccaayu bis boobu bis bu màgg bu tedd boobu ñu am ndigal ci xalifa bi am ndigal ci ku ko fi nekkal set setal dëkk bi. Euh, liggéey bi day liggéey boo xam ni Serigne Touba lañ koy defal mu jëm ci màggal gi nga xam ni Cheikh Modou Moustapha Mbacké moo ko doon moo fi indi woon Serigne Touba mooy bis bi mu ko indee woon. ñu koy waajal màggal googu ñu woote mbale mi nag ñun ñuy waa kër Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridina te xam nga Cheikh Ibrahima moom léppam Serigne Touba la fu Serigne Touba rek Cheikh Ibrahima moom amatu sago li ko war rek mooy mu jóg loolu moo war a sabab tey jii ñu wootee sunu jëwrin di Cheikh euh, Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Winta ci turu jëwrinam Cheikh Moustapha Fall Mbar ci lañ wooyee ñun waa booloo baax bu ko Serigne Modou Winta Fall ñu teew si ci liggéey bi. mbala mii nii waaw mbalam mbalam Serigne Touba moom Serigne Touba saa su ko wootee gisul kenn ñu doon Baye Fall ñun Baye Fall dañuy topp rek la maam Cheikh Ibrahima Fall daan def muy liggéeyal Serigne Touba ba mu wàcce ko loolu rek lañ fas yéene def incha allahu rabbi ba keroog ñuy faatu. alxames jot ñun bala ji boo dimanche ñu dem ko sañ sañ Muntaxa ak ak ndindi fu nu woo ñu dem liggéeyal Serigne Touba rek lañ fi nekk. comme dañoo bëgg xam nga fi mu ne jamono nawet la ñu nekk te jamono nawet moom. il faut ñu setal dëkk setal Daaru Xuddoos ngir nit ñi mën fa ñëw ci màggal gi loolu moom waral ñu di ko def at mu jot nag ñu def ko nag saa bu mag bu jub see rek dañuy seetal du bokk Daaru Xudoos lépp dañ koy bale bale mu set wécc waaw. lépp rek lépp rek gis nga bi ñuy ñëw ay radoog ay ëlleer ay peel ak lépp lañ andi moom luñ buñ fuñ ci dem rek lu dafa war setal setal moom buñ ko waxee bowuñu dara ndax boo fekkee ndox mu taa sax war ngaa wut loolu ci setal la bokk boo fekkee ñax mu ñax mu sax da yor ëlleer ba moo xoolee mbooloo mi fii daanaka ëlleer ak peel ak lépp luñ yore lépp luy bokk ci setal rek mi ngi ak nun daal suñu taxawaay mooy lan jaayante woon ak sëñ Saliou 99 lan woon ak sëñ Saliou ban ka tàggoo dafa tee ca mbaggam yu teddee ni man lii ngeen may tàggu maa ko waroon buub maa waroon a topp mbay di tuwaay di ko buub 99 ba nëgë ni nag nun suñu taxawaay mooy fu daawli sëriñ tuwaay bëgg a màggale nu dem setal ko tàmbalee ko fii ci Daaru Xuddus gii fi la lépp tàmbalee Mbacke Kajoor bu bu màggal gu jubee dañuy dem Daaru Muxti bu màggal gu jubee dañuy dem Poroxaan bu màggal gu jubee dañuy dem gis nga ko démb biñ noo nga yendu ndaam di waajal bisub sëñ ndaam Abdourahmane Lo ndigal li nu sëriñ bi joxoon can fas yéene faatu mooy daf noonu bu ngeen tàmbalee sëñ Tuubaa yam sëñ Tuubaa lépp lu ngeen ci bëgg di ngeen ko am tëdd na ba guddi mu woo sëñ Abdou Lo ñu wooma ma sama portable coupé moo sëñ Abdou Lo ni ko Abdou Lo mu ko mbakke mu ne ko bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa liggéeyloo da koo da koo gën yéen nag sëñ Tuubaa da leen liggéeyloo tànn leenub liggéey naa rek jàmbaar rek góor ñëpp wax dëgg jàmbaar rek kenn ku ne toj sa ci liggéeyal sëñ Tuubaa rek waaw moom danaa ko gisee waaw noonu noonu waa day yem suñu xaj suñu ndax dëkk bii fii ñu ne nii sëñ Modou Moussa Mbacke moo jëkk a tàmbali mbale mi bi mu ko defee turki njaaree moom la lal te bu mbalit mi tekki daal ne fii day ku fi setalal Serigne Touba ab xasab ñu set buddi say jëng ci sawara ñu war cee teew di ko kon bi war ngaa teew si ci liggéey bi ndax xanaa boo dee ab war la kon biñ nekkee ci àdduna li ñu war rek mooy jël suñu jamono jëpp rek jox Serigne Touba. te ñun dañoo doon xale yoo xamante si nii kat ah, ngërëm rek la ñuy saako wax dëgg si yàlla ndax am na suñu morom yoo xamante ni boo leen gisoon tey ji jéemu ñoo xam sax maam Cheikh Ibrahima Fall wala Serigne Touba ne ci li leen neex ñu ngi doone xale yu ndaw di saako rek waaw nga ndimbale Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. ñun amuñu lu Cheikh Fall rek lan am tey ak ëllëg. ma digal ñëpp ni leen gone yi nun danoo dee ba noppi gone mag moo gis muy xeeb gone yi nag man dama caa bokkut. ndax mag feccaanu dooru doon mag mbaam bëre làmb dooru du mag gone yi nag dañoo judd bëgg sëñ Tuubaa bëgg xasaayit man moom laa leen bëggee dama leen a ragal sax. maanaam maanaam dañuy génn ci bale moom xam na ñi boo gisee mbooloo mi nga gis ni ñuy liggéeyee nii xam ne li ñuy def du caaxaan te ñaq coono rek moo koy génne te coono mënta ñàkk ci àdduna doomu aadama foofu mu jaar rek dana dana am coono li gën nag ci coono mooy coono ak tu Touba Serigne Touba bisa bi ñu koy defal képp koo xam ne am murit nga ñu koy woote da nga nekk ci Touba gi xëy na boo génnut te amoon leen lu la gàllankoor da nga xamul gàcce waaye am nga lu mat gàcce. waaw xanaa ñu góorgóorlu ci rek wax dëgg ndax moom taalib moom ndigal rek lépp moom lay wéy muy Mbàkke muy Fall lu dëgg ñun ñëpp ndigal nañu wéy rek waaw loolu la. yaara yu ma yaay borom xaas ni Mustafa ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat seen gémmiñ yi saañ nañ ko Moustapha ña daa jabar ak ña daa xaatim ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Moustapha